asalaamaaleykum internet enquête 221 point com ñu ngi dellu siwaat tey di leen indil seen émission artiste sur la toile bi nga xam ne yéen yéen a ko préféré di ko regarder saa su nekk artiste sur la toile revient après la tabaski ñu leen di déwénati nag di leen balo àq bu baax ginnaaw bi ñu leen baalee di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñu leen di baalu àq ci li nga xamante ni moom ngeen yéene woon ñu liggéey ko te liggéeyuñ ko li ngeen di gis mu leen naqari fi ngeen bëggoon mu egg fa te eggu fa li nga xamante ni bëggoon ngeen ñu def ko te jotuñu koo def ñu leen ci baalu àq bu baax ni leen jéggal nag ci kenn ku si nekk moo xam loo wax moo xam loo def la ñu leen di jéggal bu baax ndax opinion publique la ñu wax kenn ku si nekk am nga droit wax li nga bëgg ni nga ko bëggee fi nga ko bëggee ci ni mu la neexee jéggal nañ leen di ñaan yàlla ñu teewee ay at yu bëree bëree bëri di ñaan yàlla aussi yaakaar bañ a tas ci cent enquête 221 li nga xam ne yéen a ngi koy séntu yëpp yàlla def ko tamit ba du ngeen découragé benn yoon artiste sur la toile revient à chaque fois dañuy xool li nga xamante ni moom moo leen gënal ñu ñëw def ko yéen yéen a am seen ay choix personnel u artiste yoo xam ne yéen a koy demandé ñu ñu dem di leen ko indil ñi ngeen namoon gëj leen a gis yaakaar ni sax dañoo absenté ñun ñu dem seeti leen ba gis leen indi leen wan leen ni tey la ñu gën a présent dañoo làqatu ci seen ruq nekk ci beneen waar di liggéey tey nag ñu indi si ku mel ni Pendo Guissé Penda Guissé Pendo Yaama ah euh, une dame boo xamante ne c'est toujours un plaisir de la regarder euh, moo xam ci sourire bu rafet bi sañse bi ah mbégte bi nga xam ne moom la lay jox à chaque fois ñu daan ko seetaan midi bu jot ci seen TV bu booboo ñëpp di xaar kër yaama kër yaama tey nag jëlal nañ leen yaama indil la ko yaama ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa euh, enquête 221 di nuyu waa mbokk internet yi di nuyu seetaan ñëpp. donc maa ngi leen di wax maa ngi leen di baalu àq bu baax a baax di leen baal àq bu baax a baax kontaan naa bu baax a baax ci enquête 221. voilà comme ni ma la ko waxee Yama c'est toujours un plaisir de te regarder ci sañse bi ah ci ci ci joie de vivre bi euh, chaque fois koo gis Yama sourire am ngay njëkk gis lan mooy sa secret. waaw secret bi de sant yàlla rek tubarkalla macha allah ndax nit amul lu dul reetaan mhm. te man reetaan moom dama koo tàmm. yaa ma jekk tagal Sénégal yëpp dañoo xaar sa tagal yaay borom tagal nag. waa tagal gaa dama koy fël daal benn bët bi dañ ma koo jàngal maam Bassine Thiam ak Mbose ñoom ma koy jàngal. yaa ngi tudd ñu baax a Mbose namu naa am na loo mu diggoon ba tey gisuma ko <laughs> voilà ñu am mbégte mu rëy ci dina dalal ci artiste sur la toile yaa ma nga ñëw indi benn single namoon naa leen jeg-jeg bu sàgg daw la la da nga bëggoon gars nam la. waaw dama bëggoon gars ma nag moo tax ma dawoon tuuti daal di xaw a génn benn génn bu sew daal di waat lan lan moo waral daw boobu génn parce que da nga indi loo xam ne luy toj àdduna la ñëpp di ko waxtaanee ñu jege ba saa kenn gisatu la nga jege ba saa ga sey lu waral loolu. waaw mais daa am lu ma doon lu ma doon woon nit yi rek xam nga nit ñi dañoo yeewu rek gis ma ma woy affaire bi jaaxal leen nag nit ñi di wax ne yaa ma est-ce que day woy léegi nag après su ma comme wax naa leen namoon naa leen ba pare ndax li ma gaañoon moo taxoon ma ñëwoon wax ak ñoom léegi gaañ na ma ba pare jeex na gaañ na tamit Sénégalais yi jeex na donc dañuy indiwaat leneen nag loo xam suñu vrai rythme la ñuy wone. Yama a l'habitude de voyager ku bëgg découverte nga lu tax. waaw dama bëgg découverte xool lu ne ci ci ci ginnaaw parce que nag toog Sénégal bi kese tamit du du du du affaire bi donc bu la yàlla mayee euh, possibilité wu ngay génn di dem donc dafay baax tuuti ci artiste bi sax mu xam nga gis ñeneen yi nit gis dem ci yeneen i réew donc ça fait du bien. Euh, beneen bi ça toujours été un plaisir comme ni ma la ko waxee bi ñuy ibbi midi ñëpp taal seen télé kër yaama yaama ni muy jaagar jaagare ci biir këram plat yi muy togg ñi mu daan invité waxtaan bi mu daan séq ñoom mu mel ni dafa mel ni sax nit ñi dundatuñu woon émission mais dañ doon dund comme ku nekk si biir kër ñuy seetaan li mu am ci biir këram nga xëy suba rek daal di arrêté loolu carrément daal di def li tubaab di naan sevrage brutal pourquoi tamit soxor boobu. non non non non c'est du loolu c'est dafa am loo xam ne dafa war a jeex xam nga yendu leen kër yaa ma dafa intéressé woon nit yi. donc nit ñi dañ ko bëggoon ma doon ci dem ak ma demoon seeg nag sama càmmiñ Aba mu nekkoon affaire boo xam ne lu naturel la woon parce que Aba souvent que li tax yendu leen doon doon nekkoon lu am lu lu doon intéressé nit yi parce que man ak abaa dañ doon gisante guddi gi Aba day ñëw sama kër fii ñuy waxtaan man ak moom dañu jékki-jékki teg benn affaire te li nekkoon ci kër yi leen doon génnee donc yendu leen dafa nekkoon émission boo xam ne nit yi dañ ko di wane ma doon wane waale xale jigéen nan la ñuy toggee donc loolu moo nekkoon moo taxoon émission bi gënoon am am am importance mais mais pourquoi arrêter ko parce que xam nga yaa ngi wax ni am na loo doon wane mais beneen bi aussi nekkin ci biir kër ak joie de vivre lu mu ne àndal dina am ay jour yoo xam ne fecc lay doon dina am jours yoo xam ne am yaa nga xëy suba rek arrêter ko pourquoi. mais loolu nag xanaa loolu dañ koy laaj euh, waa Sen TV di ko laaj Bougane tout parce que Bougane yàq na émission boo xam ne ñëpp ko doon seetaan franchement donc te émission boo xam ne ñun ñi si nekkoon daf ñu neexoon daf ñu neexoon de leen kër yaama bi noonu man doon dem marché. daf ma dama doon kontaan ci loolu dama doon dem di won nit yi ne marché bi tey neexul est-ce comprendre nga doon def tam li si jaba nga xam ne ñaari ñaari affaire yi dama doon xool bu seeree dama koy xam bu wàññeekoo dama koy xam donc te dama doon yóbbaale peu de dépense sama loxo te su ma demee li ma bëgg togg naa ko si togg dépense bu tuuti boo ñëwee togg lu rëy ak ni ngay dressé table beeg yooyu invité nit ñi accueil bi surtout kon xale yi ni ñuy toggee xam nga togg xale jigéen yu bëri nag nañ ma baal mais mënuñu ko togg xam nga nekkul ay soos rek defar yàpp wala firiir wala dara non loolu dafa yomb torop bu bëggee xam ku mën togg dëgg da nga koy jox place sénégalais yi mu di ko togg donc xool xale yi mënutuñ dem marché am na ñu bëri moo xam mënuñu dem marché donc te marché mun ko mun dem marché dafa dafa am solo waaw. su ma su ma ñëwaatee ci xale yi jigéen yooyu tu toujours déploré la fekk Sénégal ñuy wax naan jigéenu Sénégal yi dañu yomb ku mës wax loolu rek wax na lu la metti non non non jigéen Sénégal wax dëgg yàlla yomb ñu bu fekkee am na ñu yomb itam ñi yomb mooy ñi xamul mais am na jigéen foo koy fekk donc yomb munu fa am parce que nag li ñu bëgg dafa bari te ay sénégalais lañu du ñoom personalité Sénégal boo bala nga koy bala ngay xam jigéenu Sénégal moom lu muy représenté nga génn Sénégal boo génnee Sénégal buñ la xoolee rek dañ naan kii sénégale la donc am na lu tax ñu ne sénégale nga kenn xamul lan la peut-être mun na nekk ci la mun na nekk ci fayda mun na nekk ci sa solu et tout mais sénégalais moom fu mu dem xam ne kii sénégalais yaa ma yow mi génn def ay réew yu bëri tey am na benn développement bu ñu bëgg suñu réew changer suñu société mais nit ñu bëri dañ koy déplorer suñu waxi ñu naan dañu bëgg roy ci tubaab li noo gisee loolu. non non royuñu ci tubaab bi mais lu baax ñëpp ko bëgg comprendre nga parce que tubaab bi nekkul ñoom kese boo demee tey fu mel ni Dubaï da ngay xool Dubaï bu ñu la wonee seen tali yi rek dafa mel ni chaque instant dañ koy raxas. comme nga xam ne boo demee ci tubaab yi nga gis fa mu rafet ba yow boo ñëwee daf di euh, dëkk tubaab yi euh, toppandoo wuñu leen mais boo fa demee yaa yar sa bopp xam nga kenn du jël yet di la wax lii mais amoo droit naan man même bu ma àndee damay ànd ak des fois sama benn xarit bu naanee café rek def ko xër rek ma ne ko non mais arrêtéel pourquoi ngay sànni mun mooy eh, xëyee sa waay bii du Europe ma ne ko non du Europe mais boo fa demee yaa yar sa bopp man Sénégal ñemewu kenn waxuma nag bul ko def mais ñemewu ma naan wala ma yor musuwaar man sama saak mooy sama sama sama poubelle bi ba may dugg sama kër te pourtant loolu boo demee Europe kenn du la ko jàngal yow yaay gis ne fii kenn saaniwu fi mbedd Maroc bii rek boo fa demee amoo du boo ko defee da ngay dañ lay woo léegi da ngay fay fi nga taxaw kon nga xam ne kenn du yar kenn ku ne yaay yar sa bopp lan nga gis ne Sénégal buñ ko defee rek tey dinañu mën a am parce que Europe boobu loolu du lu bon jar naa roy lan nga gis ni yan matuwaay bu ñu ko jëlee loolu dinañ ko mën a am parce que nag il est temps que ñu changer mentalité société sénégalaise. mentalité bi moom war naa changer parce que boo demee bu génnee Sénégal ngay xam ne mentalité bi war na changer waxuma sax nga dem ay Amérique ak ay yooyu mais demal Maroc boo demee Maroc dangay nga yar sa bopp par force li ñu war def mu changer mooy li ñuy ñaan gouvernement bi mooy euh, pollu mbalit yi di ko teg ci koñ yi. parce que amoon ay temps doon na am mais léegi gisatuñ ko mais poubelle yi dañ koy teg ci ci booru koñ yi ba pare nit ñi am mentalité wu boo lekkee dara dugal ko sa saak wala sa poche ba nga dem ba gis fenn nga sax parce que loolu moo yokk Dakar ci lim bi franchement parce que nag boo xase boo xase ba génn sénégalais yow parce que ñi doo ko ñeme def loo nekk nekk nekk sénégalais ñeme woon naan si boisson bu mu neex la nga ne ko xër ci mbal loolu doo ko def jamais de la vie. yaa pour les projets avant le mariage gis ne da ngay topp projet yeeg liggéey bi ba boo deful nanka di nga dem ba toll ci benn niveau boobu góor dootula la àttan est loolu am na aussi. waaw mais góor loolu loolu am na mais tamit euh, fi ñu nekk gis nga bu njëkk bi ñuy wax ne ay sëy leen sëy dafa jotee di expliquer sunu jamonoy maam ak sunu jamono du benn sunu jamonoy maam danga daan toog ñu ne dem leen kër na dem kër nijaayam diw mais léegi loolu amatul yaay tànnal sa bopp yaay seetal sa bopp yaay gisal sa bopp mais man je me nit ki bala ngaa sëy wala wala balaa wala ki lay takk il faut nga am foo leen ko teg ba pare parce que dëkk bi dafa toj. dafa mokk de faju seer na lu bëri bari seer na surtout faju bi faju bi moo gën a seer Sénégal donc il faut nga am daal loo jama daal dama gëm la sama principe la nag du principe bu kenn pour yéen ñii seetaan du seen principe man sama principe mooy damaa bëgg xaar bu ma pare li may def yëpp ba pare parce que danga di fay location ba pare dem sëy koo xam ne tubaarkàlla yéen ñaar yéen a yem garab gu la sutur du la may ker comme on di soo ko waxee dañuy wax ne non non ñii dañuy sëy ndax xaalis du cadre loolu sëy par force mu ànd ak par force mu ànd ak yooyu yëpp sëy il faut mu matériel kon bee boo ñu sëf ñëpp ni dañoo matérialiste parce que nag doo ñëw toog mu leen na nag Ablaye njaay bi yoroo cent franc yoroo xeer nga dugg fekk nit ku toog nga bëgg koo takk après léegi nga lekk ngeen lekk lan. Ah. waaye ma ne xam nga lan la dama ne yow daal xaaral ba ku ñu góor ñi nañ dem liggéeyi ba lu ñu yoree soxna. du dëgg xam nga nee da nga koy mat mais da nga koy mënaale mataale ak mën donc yow tam balaa ngaa sëy xoolal bu baax fi nga koy fi nga koy teg nit mën ngaa sëy ki nga nopp te fekk du am xaalis. du cadre xaalis bi fi ñu ko teg mais booy liggéey may liggéey ngay wut may ut bu ñu amee ñu bokk ko dajale day gën a neex rek du dëgg. voilà waaw non. sama principe la du principe bu kenn sama principe la man daal damaa bëgg pare waaw kër gi wër ma tubaarkàlla terrain bi ma laxaat jóob may ma dem jëli ko laxaat ndiir tubaarkàlla def ci ay gazon def piscine bi may rêvé. waaw ah, waaw léegi nag bu boobaa ah waaw man man damay rêvé man damay rêvé rek man moo gisee kër gu moo gisee kër gu rafet sax rêvé naa dugg fa man dugg naa fa ak yëpp yàlla bu mu am piscine. <laughs> c'est bien Pendo euh, loolu c'était sa vision par rapport ak euh, li nga xam ne moom de la société bu ñu duggee ci sa carrière euh, Pendo a fait son petit bonhomme de chemin entre commencer fecc ñu gis la nga aw Moussa Diouf ci Birima Sambay Sarr nekk lu tuuti ndeysaan jaar ci seen ñu ne gis sa ngay taasu des fois quelque temps am na ay théâtre sax yu ne daan gis nga ànd ceeg yooyu ba tey yaa pendoo jaar ci télévision def émission yaama ba tey ñëw ak single bi pendoo ñëw ak fi mu egg ci aar benn résumé bu ndaw ci parcours boobu. waaw parcours boobu nag fecc laa commencé parce que bokk na ci li tax sama jàng yàqu mooy démbi Fall moo amoon troupe théâtrale suñu koñ. donc dama doon sàcc sama garam bu yaay dugal ko moom bokk na lu yàgg yàq sama jàng moom jàng ma jàng sax na man bu ñu ma joxe sax ay récitation wala non non classe man est-ce que yegg naa fa parce que CM2 la ñëpp yem man ah, oh. bi ma bi ah, non non naa man maa ko arrêté foofu man mais man kii woon naa nu mu tudd dañ koy waxee sax admis naa mais man maa bañ parce que boobu temps répétition yaa ngi neex ñi ngi joué ji fu ne ñu dem fay tout expliqué affaire bi neex ma nag maa bokk foofu waa démb faal daal loolu def nañ ko après ma jóge fa ànd ak sën et di dem nag di aw ji ay Moussa Diouf di aw ay Madaba aw ay rappeur et tout expliqué après affaire bi dugg ma virus bi dugg ma rek hop c'est parti. et puis nag aussi dafa mel ni joué na si le fait que nga bokk ci famille musicien. même bu ñu waxul famille musicien mais on peut mën nañu citer ces deux frères yoo xam ne ñu ngi ci musique ñu xaar ñu xam leen ci ñu am ci benn présence boo xam ne kenn du leen présenter Sénégal est-ce que nekkul aussi jeune boo xam ne fa nga ko jëlee. non non non Demba man maa ko njëkk def musique parce que man bi may awu ji boobu Demba mi ngi nekk euh, mécanicien mécanicien Aline Guissé waa sama cousin la mais am nañ beneen frère bu tudd Samba gise buy def buy def art buy def musique mi ngi états man sama famille yëpp pratiquement ñoom ñëpp am na ay musiciens soo demee sama kër bàjjan ngaala mi ngi joué euh, tëgg jéembe ak yooyu ibraham mi ngi Italie di tëgg jéembe ak yooyu donc ñun ñëpp dañoo judd rek kenn ku nekk jël benn branche dem ci comprendre nga donc loolu mun na ko def tam mu nekk ak tam yaay yaay bu ñu ci jàppale tout sama yaay daf siy jàpp bu baax a baax aramin fari karama ca ngent dem bay sa njaba mi ci Podor bi ci ndand ak jaaji mi ci ceeb bi daan dikkeeg may saa ñaan sama yaay loolu mooy solo am donc loolu moo tax mu nekkoon yaay bu ma ci jàppale woon bu baax a baax parce dama doon dem ci podium yi rien que pour am benn paan bu ma jox sama yaay dama doon wax yaay suba nga yeema suba am nañ podium géejawaay te podium bi bokkuma ci woon mais c'était juste que dama doon dem di taasu wala ma fecc su ma ànd ak sama groupe ma leen leen léegi fecc leen man ma taasu ma nekk xale bu ndaw ñu teg ma ci podium yi ma koy gërëmee nag jee asu bu baax a baax borom a ñu doon ñu teel a wéy loolu nag ak dërëm mi nekk ci euh, TFM et tout jee as yoroon groupe bi tout yor waa Télé Force donc ñun yàgg nañu yàgg nañu liggéey ci loolu daal. tey musique fi mu yegg si mu waroon nekk loo xam ne waroon leen woon sax def dara mënoon ngeen toog musique fay leen mais on a eu récemment problème yi ngeen am ak waa Sodav kaas beeg yi mu mettee loolu aw est-ce que tamit jotul yéen musique bi ngeen jëlal ko seen loxo bopp. waaw loolu nag moom dañ ci dañ koy bàyyi rek sax si doo ma waxoon sax dootuma ci waxati parce que nit yi peut-être dañ foogoon ni ah, dama am problème ak Ngone Ndour Ngone c'est mon ami Ngone sama xarit la je ko beaucoup. mais il faut dire que aussi ñun xamuñu man man personnellement dama doon wax ne su ma ñibbisee damay dem ba si Ngone ma laaj ko parce que bëgg naa xam parce que nag bu fekkee ne comme par exemple da ngay liggéey si benn affaire nga am BSDA ñu changé ko defee ko SODAV. man xaw si yëguma si dara ndax man lu ma si yëg damay dem wax ko du dëgg donc man je me suis dit dem nag si Ngoné ma toog ak moom mu expliquer ma clairement ma xam parce que man je me suis dit que ñàkk xam la artistes yu bëri xamuñu waaye ku ci xam doo ci am problème te Ngoné tam nit ku baax la franchement Ngoné Ndour franchement nit ku baax la. Euh, carrière euh, Pendo xamee nañ ci bu baax seen seen dab ci ci passage yi ngeen am publicité bu ñu mosaan gis seen gis Pendo rek. dafay dem ba publicité bi day mujjee sax dem nekk single lan la seen def ci yow parce que nag am na benn boo xam ne sax gis naa ngay wax ci moom ba ne am na lu mu def loo xam ne saa sax defu ko ci yow. voilà loolu am na maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan sama yaay seen seen euh, li ma jël ci moom doomam yi mu jur jëluñu ko ñi mu yar jëluñu ko ci moom loolu moom je le dis haut et fort parce que nag seen jël naa ci moom rigueur bi jël naa ci moom. su ma taxawee ci kaw seen di liggéey nii doo du ma xool leneen du ma kaf du ma li may liggéey mooy li may liggéey def na ci man aussi loo xam ne geste bu ma def rek man sax daf may damay toog sax di waxtaan ni jékki-jékki def benn affaire ne oh seen waay billaay dama jékki-jékki wax benn wax rek ne seen moom moom lii nii parce que peut-être bi ma ko jegee c'était juste que jegewu ma ko woon pour donn ko mais dama ko jege woon pour doon ko comprendre nga voilà dama koy sentir bala nga koy xam sax su may def podium wala may liggéey même sama son bi ma ko génne bi may def ñëpp dañu ma doon wax gestu seen rek nga jël ah, bi ma defee moom tam publicité bi mu ko gisee si télé bi rek dafa yuuxu moom ne kii sama doom la franchement parce que jël naa ci moom loo xam ne bi ma ko bi ma fa nekkee seen boo ko jegee doo ko doon danga koy doon parce que kenn du doonu yaay jàmbur kenn du doonu baay jàmbur juruma mais nag jël naa ci moom jikko boo xam ne mbaaco mi mu jur jëru ko ci moom loolu moom je le dis haut et fort te loolu munu si dara moom loolu moom munu si parce que tayu ko le fait que man ma gënoon ragal sax sama yaay que seen parce que li ma doon nekk ak seen moo ëppoon li ma doon nekk ak sama yaay. soo xam naa ne ces daan fees mais je me lan nga fay way ban répertoire parce que Pendo amul single Pendo taasu taasu lañ ko xamee woon publicité yi nga koy gis muy taasu amul single amul album Pendo di tëgg soirée muy fees. man dama doon liggéey seen TV mais dama doon tëgg sax dimanche au black muy fees dell su ma yeewoo su ma ñëwee di gëmante ne abaane ma oh, dafa joué ji woon. jour boobu moom mbaxal laay togg pour mu gaaw parce que day fekk ma sonn bëgg nelaw mënu ma nelaw ma yeewu 9h imagine tëgg tëgg 6h du matin yeewu 9h dem liggéey seen TV doon tëgg soirée mais répertoire bi ma doon tëggee man bi ma nekkee xale laabaan bu mosaan a am parcelle 1 ba 26 maa ko doon way man lañ doon yee fajar teel may dem ci laabaan yii man lañ doon woo may dem ci mariage et tout bool dama ko doon tëgg donc lu yooyu mooma te maa ko jëlee loolu noonu ci maire bu ñuy wax Seynabou Niang maire boobu doon tëgg ndaameloo te doon def nii bopp bi nii bi ma gënee nekk xale maire boobu moo nekk laa doon gis su may tëgg dama doon littu sax ay mees sama yaay mu bàyyi ma may tëgg bool dama mën na tëgg lekket su ma tëggee tëgg lekket da ngay fekkoon kii Kaolack la dëkk c'était juste que loolu la woon ak way yoo xam ne peut-être nit ñaa ngi ko doon dégg ay cigaamu ngeel waar ay ay su ma la nammee aw ma ku ma yónni loolu su ma ko woyee sax defe naa ne nit yi dinañ ko xam parce que amoon nay jamono yoo xam ne Sénégal bëggoon nañ woy boobu torop xamuñu ma woon boobu mais su ko wax rek mu ne yow penn doo woy sa woy boobu am mooy loolu daal man daal dama ne don la daal luy ànd ak man la nii di dem parce que su ma taasoo da nga ma woyee nga ne kii woy rek la man ni ma nelawee ni nit doon nelawee nag ma daanu seen kaw noonu lay daan waatee seen kaw waaye fi ma jëm nii kenn mënu koo xam fi <laughs> eh, léegi Pendo namoon naa leen benn benn benn eh, mun naa ni vidéo trent minutes la si nit ñi gis nga daal di koy statut ci benn xew boo demoon mën naa la wax sax yaa ngi sol ca benn VIP bu bu palman vert def tagal bu rëy mais Pendo xew moomu mu nga ko tàj na namoon naa leen nu mu la yow parce que après la ñu gis pendoo ci xew yi gis ko gisaat ko xëy suba single bi génn fan la commencé. waaw namoon naa leen nag euh, dañoo gëj a gisee loolu woyu mbëggeel la loolu parce que man je me suis dit que mbëggeel daf ma yàgg abattre comme daf ma yàgg abattre nag ma dem a dem a dem ba mu gi tey nga génn nag ah, ah, ah dama doon bëgg muy échec parce que bëgg naa presque ñaata nit xaar ma wax ko sama xel du tudd seen tur parce que ma tudd seen tur day ñaaw bëgg naa ñett nit yoo xam danoo takk jabar franchement mbëggeel yu foor nag ay mbëggeelu 4 ans mbëggeelu 5 ans mbëggeelu yow sax yaa am occasion tey ma wax ko ni mais loolu mosuma koo wax. li leen li metti ci seen jooy mooy du jooy publiquement da ngeen di tëj seen xuddi jooy. bi ma bi ma mbëggeel abattre dëgg dëgg dëgg dëgg ay décembre laa doon déglu. yow rek yow rek yow rek da jox naa la xol bi te delloo nga ma loolu donc loolu woy bu dama doon dugg si YouTube bi di xool woyu mbëggeel yu sensible yëpp di ko déglu di jooy di jooy nag di jooy man kese nag daf ma doon metti parce que ay écouteur rek laa doon tàkk doon moon wax ak kenn boobu munoo génn si mbedd bi di ko wax nit yi comprendre nga donc ma ma feebar nag mu feebar ma nag médecin bi jox ma ay garab pour ma nelaw parce que ma doon toog ay journée du ma nelaw ñu jox ma garab pour ma nelaw moo tax ma wax ni mbëggeel daf maa gaañ tëdd ba xaaji guddi ñu yenn loolu dama ko dàgg parce que bëgguma ko way may importance sax ki ma bëggoon noonu parce que day yomb tarap si que ni tu tu la plaie eh, da ngay da ngay da ngay defaat alcool ci góom bu wéroon ba pare ko def nag pour may ko opportunité boobu sax parce que su ma aussi dama si dafa amoon tëdd naa ba xaaji guddi ñu yenn yóbbu hôpitalu Sami docteur bi foog ni dama feebar boobu feebaru ma kon mbëggeel damaa gaañ man mbëggeel damaa gaañ donc c'était ça loolu la woon mais artistes yi pour ngeen xam ko yéen ñi seetaan billaahi wallahi wa taala bu leen ragal dem leen ngeen doxal leen maa la wax loolu ay ay décembre yi fi ne dama takku ba dëgër Wally Seck laa ko lancé ne yi ngay def yëpp baax na yaa ngi teral nit ñi yaa ngi def dimbali ay <laughs> ay waa waa pépinière yi yaa ngi leen di dimbali mais ñi nga a dimbali xam ñeenti ponkali sëriñ laa la ñaan Wally Seck maa ngi koy ñaan ñeenti ponkali sëriñ na ko def ci piscine bi rek sa jigéen ñëpp sa ubbu démb yóbbante naa la ko xam naa ne jotoo ci. Wally xetali sa jigéenu artiste célibataire yi xetali leen dégg nga Wally. célibataire yi célibataire yi mère bataire yi sax la ñuy wax parce que tam te du ñun ko sa de ak ñi ko wër ñoom Gadja mën naa ci lim quelques personnes Gadja Aïda Diallo Bafa Maane Niass Nabou Diagne Aïda Awa Bari xam nga ñëpp dajale leen. sëriñ bi daal na ko def ci piscine bi rek ñu soobu bu kenn jox kenn ay sangar nañ sóobu rek ci piscine bi. <laughs> namoon naa leen cri de cœur la woon ci Pendo. na moon naa leen c'est que c'était su ma ko woyee li tax nit ñi sentir ko man je me suis li nekk sama xol la parce que loolu laa génne donc te lu te lu li ñuy wax ne lu ne ci xol feeñ ci xol lu génne ci xol ci xol la jëm donc loolu moo tax woy bi peut-être nit ñi dund ko parce que li ma ci wax yépp loolu mooy li ma dal namoon naa leen danoo gëj a gisee loolu. voilà effectivement c'est vrai ah après moon naa leen euh, Pendo dem nga sax ba benn instant xew boo duggati kenn dootul talati borom xew mi Pendo Pendo Pendo gis nañu aussi xew mi aussi bokk na ci liy participer ci carrière artiste yi parce que mën nañu wax ni jàkkaarloo yi kenn farataalu ko woon dëgg la waa jàkkaarloo yi nag kenn farataalu ko woon waaye léegi nag tubaarkàlla nit ñaa ngi woy xale yëpp ngi woy xale boo fi gis na ni mu génnee singalam mi ngi dem ci jàkkaarloo yi la rek ku nekk dana ñu woo rek nga dem tëggal jàkkaarloo yi parce que dafay neex tam aussi nit di di mariage nga dugal ko te maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ñi nga xam ne peut-être seen mariage yi dañ naan penn gis su may dugg moo may dugal dem naa ba ba Sweden loolu laa fa dem moom voilà parce que ñu ngi lay gis ci réseau sociaux yi même en Europe sax léegi tey jàkkaarloo nekkatul affaire buy am Sénégal kese même boo demee Europe dangay gis Europe léegi sénégalais ya fay xew sax dañuy bëgg jàkkaarloo te yéen la ñuy jël fii di leen yóbbu. waaw musique musique sénégalais lañ fay ëpp lu ñu fay teg te boo demee ngay xam ne euh, sénégalais yi franchement man gëwuma musique bu international xam nga lu ma gëm nit ki mooy international parce que boo demee tey Amérique dangay gis sa woyu woyu sénégalais yi rek lañ fay teg surtout Gambien yi. ma di leen ko gërëmee bu baax a baax di nuyu waa Atlanta yëpp di leen nuyu bu wér a wér a wér a wér di leen wax kontaan naa ah kontaan trop trop trop sax ci sama xarit yi su ma limee nag dinaa jum waaye du ma lim kenn yéen waa Atlanta kontaan naa New York waxaale wu ma leen San Diego San Francisco donc yéen ñëpp kontaan naa ak waa Suède. est-ce que doo defaat lu ñuy wax naan retour au bercail tey mënoo yor micro dem seeti Maada ba wala dem seeti Moussa Diouf comme nag bon dafa am loo xam ne du du xas. mais musique moom mooy toll foofu tey mën nañ ne sur le plan musical ku mel ni Madaba ak Moussa Diouf tey fi nga yegg ñoom jotuñu fa egg mais est-ce que nag jotul nga créer benn plateau wala benn scène lu mel ni grand théâtre nga dem fa tey fa nga jaaroon daan leen aaw ba fi nga yegg si fii nga woo leen mu nekk genre njukkal. waaw loolu mun naa nekk parce que Madaba nit ku baax la parce que man des fois damay ma envie sax journaliste yi dama leen koy bëgg di wax. ñuy dem kër artistes yooyu parce que am na artistes yu bëri yoo xam da nga leen doon dégg la Maada ba lu mu mës a woy kenn dàq ko woy Sénégal lu mu mës a woy téere la parce que boo xoolee kasetu man des fois damay damay déglu ay kasetu man damay jékki mu yàgg ne man ay waay Maada ba fois Fatou Lawbe dama koy déglu baax damay jékki-jékki di woy di changé woy Fatou Lawbe fi ma toog mais Fatou Lawbe di su ma ko ñemee woon damay dem ba këram ne ko Fatou Lawbe na doom may sa woy bi parce que tellement mën na woy woy boo xam ñun amatuñ dara lu ñuy woy dañuy dem si mag ñi ñu ñu jox ñu franchement man rusuma dem ci Fatou Laobé mu jox ma parce que bi ma bëggee wax wiiri wiiri wiiri jaar ndaar dama woo Jali mi ngi mi ngi Thiès ma woo ko ne ko dama benn woy bu ma doon woy woyu mbëggeel mais est-ce que mun naa jël wiiri wiiri jaari ndaari bi munoon naa ko jël sama tàgg ko mais du doon luy rafet parce que moom moom moom woy bi te man sama lépp lu ma mun a def ci adduna dinaa dem ba ci artiste bu ma gën a bu bu ma mag su ma ko mayee su fekkee séq naa kook moom wala mu may ma loolu opportunité ba ma dem ba ci moom ne ko man kat sa woy bi daf maa neex dama ko bëggoon way su ma ko mayee dama koy woy parce que loolu moo fi des Youssou Ndour woy na lépp Baaba Maal woy na lépp Thione Seck na lépp Maada Ba woy na lépp dañu waxante ne kon lu fi des ñun xale yi fi ne nii boo woyul woy ambiance ambiance comme ni ko xale yi di waxee soo ko woyul da nga laal yi fi jàmbur <laughs> ah beneen bi aussi euh, gaañu nga ci mbëggeel faju nga léegi nag est-ce di nga wax Sénégal yi li la faj ba du ñu mën a gaañu mooy deuxième single bi waa deuxième single bi nag tubaarkàlla macha allah dañuy ñëwaat fu metti nag boobu moom bu boobaa ambiance kese laa ci soxla parce que nee naa leen dina damay wekki pee gi ciwul mu ne dina ko wekki sotti si ñaari potu ndox te loolu géwél yi may dégg dinañ ko xam ndax dama bëgg ciwul mi bee xeexal bi dañuy ambiance tor parce que il faut ma wan te dinaa ci ànd ak sama benn yaay boo xam damay dem seeti ko ba këram mu jox ma ci li mu yor muy mère njaabi mère bi franchement man j'aime bien loolu. ci ci ci carrière musicale bi <laughs> ak mbëggeel bi <laughs> parce que donc comme mbëggeel dootul abaatalaat alhamdulilah parce que nag yow yow yow ñi la abaata ci mbëggeel sax dañu soxor quoi. Peno ni nga jongo ma. non non non mais kaay ma wax la ñaare fee dama lay wax ne la man maa may arti maa may sénégalais yi ak àdduna bi opportunité dugg leen ci artistes si doxaan leen leen parce que seen xol yi dafa oyof. ku ci foo xam nga dañuy foogoon ne c'est que artiste dafa am problème nag kaay ma wax la parce que dañ naan yii kii ñemewu ma ko yii kii yow yii yow ñii ti li ñuy wax noonu dafa dafa dafa dafa dafa ça n'a rien voir ak seen dund ñoom. oui mais est-ce que nekkul aussi niveau boobu Pendo ñoom ñoo fa yóbbu seen bopp est-ce que du dañu am manque d'accessibilité accessible ñu. non nañu ci accessible. xam nga li ma wax nekkul artistes ñàkk ñoo accessible xam nga luy problème ñoo am idée boobu noonu kan ñi ay artistes yi lañ yow ñii doxaan leen dafa metti wala ñii lii leen fekk bi lay wala artiste baa gën a gaaw a jooy yow moom di ko waxal franchement dañu gaaw a blessé wu xam nga seetaan naa sama sama sama sama mag ji ku ma gaw seetaan naa ko mu di ko wax mu ne xool la ñu am dañuy bëgg comme nit te effectivement loolu moo am artisi bi dafay nopp nit ba ba ba tëdd di gaañu bay yow bàyyi ma waay yow kan moo fi fii am mbëggeel ñëpp la. kon kon kon imaginer tey sama caméraman bi Roger moom nee na dafa nopp Pendo kon mën na ñëw samp ndëndëm. ah waaye déggoo li ma la xalaat dama ne la ku ñemee na samp ndëndëm yooyu amul dañuy jël benn image di ko teg ci artistes yi mais loolu amul barki yonent yàlla moomu du amul. artiste yow demal Aïda Samb gisuma ko mais xam naan ko gaaw a jooy la daa lim ñoom ñëpp ak Sabel. <laughs> mais beneen bi aussi tamit divorce yi dégg ci artistes yi Pendo day tax ñu ne artistes yi du ñu sëykat ndax euh, milieu bi ñu nekk ak seen tournée yeeg seen yi li muy laaj laaj du ñu toog si sëy. waaye ma ne yàpp ak deret la xol bàyyi leen loolu artistes yi duñu toog ñaata ñaata ñu nekkul artistes yi ñoo sëy ñoo tas ñaata yow nga xam ñu sëyoon temps yi passé ñu tas te du ñu ay artistes kenn xamu leen. man ñaata nit laa ci xam nañu c'est que artiste bi moo am vie boo xam ne vie bi laqatuwul comprendre nga lu ma wax est-ce que artiste vie am dencuwul fi na ni kenn day ñëw léegi dégg dara nii di di mu génn explosé ko fekk na mu ko déggee sax ak na mu amee du doon benn mais xool rek la ñu am nag xool kese la xool yàpp ak deret la donc da ngay am lu la naqari am lu la neex artiste bi comme moom bu ñu koy takk day siiw buy tas day siiw mais ñaata nit ñoo fi tas te du ay artiste ah waaye sëy nag moom sa waaye yàlla tas da njëkk a bind ko sëy ah. donc bu fekkee ne munoo ko tànk da nga koy taalal wala nga bank ko bu sëy bi munul dem na nañ ko teg nànk fii après loolu la te sëy bu tas ak yàlla moo ko tas artiste bi nekkul sa n'a rien à voir liggéeyam ak sëyam du dëgg te artistes yi boo leen fekkee seen kër yi ay sëykat lañu franchement ay sëykat lañu ay gérekat lañu parce que artiste dafay bëgg lu baax donc sa jëkkër soo ko amee da koy toppatoo ba mu ba mu baax ndem sa far ngay toppatoo sàkkantuma ak sa jëkkër far da nga koy defaral ba mu baax dëgg neexul ah safa da koy def bu yow bu kii war a doon sa jëkkër doo ko neng-nengal waaw pour yëf yi gaaw dëgg neexul wax amul dara amul. man xale laa ko xaw ma yooyu. nga waaye yow baa yow rek leel. yaa amul kenn jàmm la bëgg ak tuuti ndox sedd bu ko mënee am lii laa wax. <laughs> voilà Pendo. deuxième wax amul. <laughs> Euh, waaw waaw. non non nag da ngay wéet kër ga nag tubarkàlla c'est que man jigéenu defantekat laa ma Pendo kon ofte woo nekk aaw ni xalaatuma ko nag ci àddina moom kay xalaatuma ko aaw moom bëgguma koo nekk man sama principe la nag. Pendo bëggoo jàmm de da nga ñëw déranger yàq ménage jàmm. non non du déranger de c'est que yéen ngeen comprendre mooy aaw kese boo ko nekkee ci biir kër da ngay wéet ca kër ga dangay ngay manqué sonn soo da ngay jékki sa sax sol benn xaatum bërëng waaye boo amee ñaar. barki xalifa Ababacar si sëñ Babacar rek laa bëgg sama xol. mais dama lay wax ne kër benn nit bu ci ne da ngay doye di mais boo la nekkee ñaar imagine nga nekk ñaar nga nekk sa kër sa aawo nekk sa kër li tax man ma préféré aawo ñaareel wala ñetteel laa préféré man bëgguma aawo léegi soo ko nekkee sa biir kër sa jëkkër ay ñaari fan ñëw nga dëbb kër gi ba mokk toj ko defar ko yu baax yëpp mu dem ñaari fan yi muy dem noonu doo ko gisaat da ngay réfléchir nga ne defoon naa lii ñaari fan yi puis lii laa war a defaat jus bu vert laa defaroon suba dama moo defaat jus bu jaune est-ce que comprendre nga létt yi laa létt woon petite tête laa defoon noonu naa dem sama bopp daal def si ñoom bu wàcc ba ci suuf c'est que c'est que boobu man laa xoolee léeg nga woo benn xalamkat mu toog ni di ko xalamoon sa jëkkër di reer nañu waxante dëgg tamit. Pendo tu maitres maîtresse d'un homme marié. non non non duñ maîtresse xala <laughs> eh. dama de d'un homme marié. yàlla xam na loolu. Ah. du ma maîtresse d'un homme mais dama lay wax ne la. waaw oh, waaw ñaareel wala ñetteel bëgg a nekk. dama ni pour nga egg fa. pour nga egg fa sëy amagul Pendo tu es man du ma maîtresse d'un homme mais dama la man sama principe laa waxee man ba léegi Sénégalais dama leen wax ne leen ñoom ñi ko bëggul nekk loolu ñoom la mais man am personne dama bëgg nekk ñaareel wala ñetteel ba ñeenteel bëgg naa mais aaw moom du ma ko nekk man bëgguma ko sax nekk. man ka sama nekk ci biir kër gi noonu di togg togg ba sama xel mi de da ngay gaaw a doyal ci man xam nga lu bëgg ngay ay di ñeenti fan fële sax man may naa la ñeent man ngay ay ñeenti fan yeneen ñeenti fan yi nag ma di ko gérer gàlle bi tey bu ma tey boo ñëw tey ma def tapis rouge waxante di dafa loo xam ne temps moo koy def Pendo yaa aaw woon Fadel Mbaye ca ba mu doon way jigéen la ma wax ci aawo yëpp mais man loolu man ba tey mënu ma nekk aaw bëgguma ko c'est que dama ko bëggul nag xam nga nit dama lay wax na dañoo toll ci jamono joo xam ne góor dafa bëgg Euh, bakkan jàmm la bëgg te góor ñi dañoo bëgg lu neex dëgg neexul góor ñi dañu bëgg nga defal leen yu baax yu neex tey boo defaree say petit plat bu subaa nga defar beneen c'est comme c'est que man côté boobu laa waxee ne bëgguma nekk waaw da bëgg di varier mais bu dee yow kese yaa fa nekk nañu waxante dëgg si benn semaine bi sa jëkkër ñam na palaa yëpp lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche dañu waxante dëgg ceebu jën maafe ceebu yàpp ceebu xonq ceebu weex jeex na jeex na tàkk juróomi fan mu xam kii kan la mais Pendo ñu ñëw ci tuuti coup de cœur Euh, milieu artiste bi deniement xaw na métti ndax ay nit yoo xam ne dañ fi nekkoon wàññeeku bi gën a marqué sénégalais te mu yàggul loolu mu récent muy Zula mi fi jóge waaw Zula nag euh, mu nekk nit koo xam ñu ngi ko jaale d'abord mu nekk lu metti nag guddi gu métti ngi noonu ci sénégalais yi parce que ay 3 heures du matin 2 heures estat yaa ngi toj ñëpp dugalandoo ko ñu di ko jaale mu nekkoon xale nag ñu di ko jaale waa Ndar gi yëpp di ko jaale aar di ko jaar waa euh, RFC ba ñoom Salim Boubacar mm-hmm. parce que tout le temps ñu ñoo doon nekk ndoo woon foofu donc maa ngi koy jaale waa Ndar yëpp di leen wax ne leen ndaw na xale la mais yal ko yàlla xare àjjana waaw ñu ngi ñaan daal ah, yal na ko yàlla xare àjjana daal parce que nag jour boobu moom wax dëgg yàlla xol yi fees na moom parce que kenn ku nekk am nga benn jour boo am ak Zula. Mm-hmm. mais ma ñëw nag ci koo xam ne moom la ñuy tëjee émission bi muy ku xampee doo xam ko sa soppe bañ na nga ko moom ngay ibbee sa yëf moom ngay tëjee foo toog doo wax ba jóg te tuddoo ko sa diggante ak Serigne Babacar si si Malick Ndiogu faama si di faa gay dem moom ci jawaar sama waa jaa ngi nii waaw sëñ Babacar euh, dama koy dama ko gént ma nekk booru géej ñëpp di daw muy taw ñëpp di daw man ma taxaw benn paa bu màgget jox ma image yu euh, maam Abdou Aziz ñëw ba ci man ne ma yow ñëpp a ngi daw dawuloo ma seen benn fas buy ñëw ñu fuddan ñeenti tànk yi fuddan gen gi am ko toog ci fas bi sol benn mantu di daw ñëpp di daw man daw ma ma jàkkaarloog moom paa bi ñëw ba sama wet ne ma yow li tax ñëpp daw dawloo man ko kii di ñëw xam naa ko man ma kii kan la man ko Serigne Babacar donc man image boobu ma am ci moom ba léegi nii su may toog des fois dama koy gént lu baree bari sëñ Babacar moo tax du du ma ci wax lu ma xamul su may su ma meree sax su ma gisee photo sëñ Babacar damay bàyyi su ma waate ci sëriñ Babacar lu mu doon dinaa ko def su ma ci xasee ba waat su ma nee bark sëriñ Babacar lu mu dinaa ko wax parce que sama xol laa ko bëgg ba lu ma ko ci ñaan su ma tiitee sax su ma su ma woowee tuddee turu sëñ Babacar damay gis loolu noonu ab ginnaaw yàlla daal ak yonent bi ak sama ñaari jur sëriñ Babacar lu ma wax ci moom dëgg lay doon ci man mu nekk nit koo xam ni euh, sama maam la fekkeewu ma ayam fekkeewu ma daraam waaye ñi juddu ci ginnaaw mbay xamuñu mbay gisuñu mbay te mbay la ñu wóolu man bokk naa ci ñooñu mu nekk nag sëriñ bu ma bëgg lool lool lool sama xol man dama jàkkaarloog foto sëñ Babacar di ko wax jàkkaarloog foto sëñ Babacar si di ko wax di ko di ko di ko di ko mu am yu bari yoo xam ne sëñ Babacar daf may gunge sama oto sax dama boo si duggee lépp sëñ Babacar la damay wax ne oto bi tëj ñàkk naa koo tëj ñaari fan wàccee verre bi ma yeewu rek gardien bi dama ma yeewu sa oto bi tëjuloo ko man nga oto bi oto xalifa la ma yeewoo ma gént benn sàcc bu duggoon ci bi di sàcc donc yooyu yëpp damay am ay image yu bëri yoo xam ne yi ma sëñ Babacar di wanee boppam man maa ko bëggal sama bopp ginnaaw yàlla ak yonent bi ndax avant tout yàlla la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sa ñaari way jur d'abord après nga doog nag bëgg sëriñ donc man sëñ Babacar soppee sëñ Babacar laa man dama ko sopp yàlla moo dogal loolu lu ma wax sëñ Babacar laay wax ñu am mbégte mu rëy dalal la ci artiste sur la toile ñu bàyyi la nga tàggoo waaw maa ngi tàggoo nag di gërëm sama xarit yëpp nag di sant yàlla di la gërëm yow moom yow sama xarit nga pay njéeme yaay sooy tubaarkàlla borom fukki penc ak ñaar borom terrain yu bari tubaarkàlla maa ngi lay <laughs> may naa la ñaari terrain <laughs> mayoon la benn ah Ndiir may na ma benn la dolil naa la ñaar ak foo bëgg ci Ndakaaru ak Papa Samba Papa moom may na ma benn Abdoulahat may na ma benn muy ñaar donc yow defaat nga ci ñaar muy ñeent am naa ñeent terrain maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di gërëm nag sama téyeer Babacar saar te nag téyeer yi tubaarkàlla macha allah yéen ñëpp mënu ma leen mënu leen mënumaa lim su ma limee damay juum waaye xaadim kase kase biram ku ma jaay kuli kase xarindoo ak jeemaram xarindoo yow loolu dagg dëgg la waaye Babacar Sarr nag moo génn fii sama bi tubaar macha allah Babacar Sarr sama xarit bi maa nga ci Amérique nga jënd ma mbasee ñawal ma ko defar ba mu baax maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di gërëm sama xarit yëpp nag su ma limee damay juum waa diaspora bi nag moom aw ma seen fay yal na leen yàlla fay maa ngi leen di baalu àq bu baax a baax Amérique gépp nag maa ngi leen di baalu àq asu sare yow fii laal def xam nga aw Cheikh fii laal def yéen xam ngeen ñi si des ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. ñu koy jaajëfal bu baax di am mbégte ci dalal ko ci artiste sur la toile Pendo Guissé Yaama Penda Guissé mu nekk koo xam ne gis ngeen ko de ni mu waxee rek noonu la tollu ci oyof mbaax ak lépp ñuy am mbégte mu rëy ci toog moom séq moom waxtaan bu mel nii artiste sur la toile nag nii la koy defee à chaque fois day xool ñi nga xam ne yéen yéen a leen préféré ñu di leen ko indi séq moom waxtaan ci anam bu mu gën a rafetee ñu leen di delluwaat encore une fois di leen baaluwaat àq ci lépp di leen baal àq di leen déwénati di leen dig daje ci beneen numéro artiste sur la toile ci enquête 221 point com jërë ngeen jëf